bismillahi rahmaani lii mooy téere sëriñ tuuba bi ñu naan muqaddamatul amda muy loo xam ne da ko jiital ci tagg muy tagg yeneen bi alayhi salaatu wasalaam fii masaayal miftaa tagg wa nag ma ngay joxoñ caabe ngëneel ya te ci muhammad rek lees ko mën a amee alayhi salaatu wasalaam li sayxi ahmad al xadim bàyyi ci sëriñ bu ñuy wooyee ahmadu miy liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nafaana laahu bi yal na sunu boroom boole nu jariñ ci barkeem moom sëriñ tuuba yi nga xam ne mooy liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam amiin yal na nangu yaa rabal aalamiina yow sunu borom mi borom bindeef nag nga xam ne moo ko sot ba jullit yépp mën cee jot mooy Muhammad Abdil Majidi Jóob ku ñu wooye Muhammad Abdil Majidi Jóob tey taalibeeb sëriñ Moor Mbay Siise ca njaareem ca masinam yay sotti ay téere ca la ko sottee ba mbooleem jullit yi cee jot muy mbindam sëriñ Tuubaa mi kon sëriñ Moor Mbay Siise yal na ko yàlla fay sëriñ Abdil Majid Jóob yal na ko yàlla aar moo ko njabootam te fayal ñu ko moom mi fexe ba ñëpp jot fii la tàmbalee auzu billahi mina seytaani rajiimi man sëriñ tuuba maa ngi ñaan sama borom musalma ci seytaani wa inniya uhiisuhaa bika yow sunu boroom man sëriñ tuuba maa ngi lay ñaan nga musal saadoom doom ja wa suriyataha ak ay sëtam mina saytaani rajiimi ci seytaani may ko ñu jam amin rabbi yow sama boroom ahuzu bika min hama zaati sayaatiini yal nag ma musal ci jax-jaxi saytaane wa ahuzu bika rabbi an yahdurooni yow sunu boroom yal nag ma musal ba seytaane ak ak njabootam bu ñu teew ci samay mbir amiin yal na yàlla nangu bismillahi rahmaani rahiimi maa ngi tàmbalee ci yàlla mi aji xiiwal ci addina ñépp ña koy jaamu di ko sant di ko gërëm ak ñépp ña ko dul jaamu duñu ko sant duñu ko gërëm loolu sunu boroom dana ko def ak ñoom ci àddina waaye nag ca àllaaxira ndar na faa xiiwal ca ajjana ña ko doon jaamu doon ko sant doon ko gërëm yal nañ ci yàlla boole wa sallallahu yal na yàlla dolli teraanga ak jàmm taxalaa yàlla may aji kowe ala sayidina ca sunu sang ba wa mawlaana te sunu kilifa muhammadin muhammad yal ko yàlla dolli teraanga ak jàmm wa alihi te àggale ko ca ñoñam wa sahbihi te àggale ko ca ay saxaabaam wa sallama te mu dolli leen a musal tasliman ak dolli musal amin yal yàlla nangu muqaddamatul amda lii lu ma jiital ci tagg wii may tagg rasulillahi man sëriñ tuuba fi mazayal miftah ci ngëneel li nga xam ne ka nga xam ne mooy caabe ngëneel ya moo ko yor muy muhammad alayhi salaatu wasalaam salla wasalama aley yal na yàlla dolli teraanga ak jàmm ca muhammad alfata moom mi aji ubbee tey ubbi mbooleem bunti ngëneel ya bi alihi te yal na ko eggale ca bokkam yi ko toppoon tëggam ko muy ñoñam wa sahbihi ak i sahabaam kamal mala al aqdaa na mu feesale kaas ya ba ñu rembet te lépp di teraanga jam jàmm yal na ko def ca bokk yonent ba ak ca yonent ba ak ca saxabay yonent ya amiin allahuma yow buur bi di yàlla bihaqi wajhi laahi taala ci darajaay jëm mi yàlla may aji màgg ji nguur tey aji kowe alkarim tey aji tedd salli wa sallim yal na nga dolli teraangaat jàmm wa baarik te yal nga barkeel ala sayidina jëmale ci sunu sang bi bi muhammad alayhi salaatu wasalaam wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin muhammad si takriimi tey borom tedd nga amiin wa ala alihi te yal na ko àggale cay bokkam yi ko toppoon te gëm ko muy ñoñam wa sahbihi ak i sahabaam yaa man yaay buur bi aji mag ji nguur bi nga xam ne bii ci darajaay rasulillahi wa bihim ak ci darajaay saxaaba ya ñoo ngi lay ñaan yal na nga wàcce sa taraanga ak jàmm alayhi ci yonent ba salaamaani yaari jàmm ya muy jàmmi àddina ak jàmmi àllaaxira wa alayhimu yal na ko wàcce ca saxaaba ya ak bokki yonent ba rilwaanu mu ànd ngërëm lu dul jeex ba faw kuntali yàlla nga ma nekkal muy yàlla nga ma may man Ahmadou Bamba bi ma ci lépp loo xam ne aroomu maa koy sàkku ci yow sunu boroom yal na nga ma may waccaxal yal na nga def asihil am daaha téere bii nga xam ne maa ngi koy tagg yonent bi yal na bokk min ahabil maktubaati ca téere yi ñu gën a bëgg ci téere ya sunu boroom gën a bëgg téere ya malaayika ya gën a bëgg téere ya yonent ya ak wàllu ya gën a bëgg ak gaa yu baax ya te muy wax ilayka jëm ci yow sunu boroom wa ilayhi te muy tagg jëm ci yonent bi wa ilaahi baika te muy wax jëm ci ca sopp ya ñu nga gën a sopp muy yonente ya muy wàllu ya muy malaayika ya muy gaa yu baax yi yal na téere bi bokk ca téere yañ gën a sopp te wax jëm ca ñu baax ñooñu ñëpp te nga nekk ca kaw yow sunu boroom yonent bi topp ca gaa yu baax yi topp ca amiin yal na nga nangu yaa rabbal aalamiina yow boroom dindeef yi di sunu boroom wa basir yal na nga bégal kuliyatahu lépp yonent bi alayhi yal na nga dolli ca moom salaatu wasalaam teranga ak jàmm téere bi yal na nga bégale téere bi lépp yonent ba bi kitaa batiha ci bees ko bindee yal na nga dogal mbégte wàcc ko ca yonent ba waxiraa atiha ko jàngee yal na nga dogal mbégte wàcce ko ca yonent ba wa nasari ila urufi a saa sees xoolee jëm ci arafi téere bi yow sunu boroom yal na nga sàkk mbégte wàcce ko ca yonent ba ay su kutibat saa sees ko sottee ci xalima mbaa ab usine mbaa ab machine saa su sottee téere bii yow sunu borom yal na nga dogal mbégteeg teraanga ak jàmm wàcce ko ca yonent ba aw xuri at fees ko fi man di jàng yal na nga dogal teraanga jàmm wàcce ko ca yonent ba aw nusira ilayha mbaa sees xoolee jëm ci téere bii yow sunu borom yal na nga dogal teraanga ak jàmm wàcce ko ca yonent ba loolu nag yàlla boo ko dakkal yow sunu boroom ilal jannati leti ba ca àjjana ma nga xam ne waxi dal mu tàqoo na nga ko way ragal yàlla yi yal nañ ko yàlla boole awaac xalhaa fiiha yal na nga def ci téere bii mima mu bokk ca téere ya nga xam ne kata xanaa danañu ko wayantoo bii ci téere bii xoorukal aynu sa soxnaay àjjana ya nga xam ne yaa leen sàkk sàkk leen wil daanu yéen dëkk ñoom ca àjjana muy waxambaane àjjana yéen a dëkk ñoom sax fa dàkk ñoom la ñuy woyantoo yal doon téere bi amiin yal na nga nangu yaa rabal aalamiina yow mi nga xam ne yaa moom bindeef yépp di sunu borom téere bi nag ñu ngi ko tënkee wa innaka laxallaa xullu xin azimin baat boobu di baatab alxuraan sunu boroom di ca joxoñ yonent bi na ko yaa gën a kowe ñépp ci jikko ak bind bu tedd bi ma def ci yow waaw gi fukki bayit ak yaar la ci sëriñ Tuubaa tënk liif gi fukki bayit ak yaar nuun gi fukki bayit ak yaar keef gi fukki bayit ak yaar laam gi fukki bayit ak yaar ay ndigal gi fukki bayit ak ñaar laam gi fukki bayit ak ñaar xuluxin azimin baraf wu nekk fukki bayit ak ñaar noonu la bind téere ba mu jeex kon loolu ñu doon wax tàmbali bi la ñaan gi la tarjumaan ji la léegi nag ñoo ngi dem ak yow ci numéro 2 bii di topp ci waxtaan wi muy arfu waaw baatab arafu waaw la ci sëriñ Tuubaa jëmale ci yonent bi yal nañu yàlla may dégg ak topp yaa ngi jàng muxaddamatul amda page bismillahi rahmaani rahiimi lii mooy téereb sëriñ Tuubaa bi ñu naan muxaddamatul amda téere bi moom la jiital ci tagg muy tagg yenent bi alayhi salaatu wassalaam fii la tàmbalee wasixtu dëgërloo naa bi rabbil arsi ci nga xam ne mooy boroom aras di sunu boroom mi aji mag ji nguur mi sàkk aras te boo boolee juróom ñaari suuf yépp boole juróom yaari asamaaw aras ëppee na ko ñeen fukki junni yoon kon aras lu rëy la lu màgg la lu yaatu la lu diis la lu sel la léppi aras leer la sunu boroom mi sàkk aras moomu nag man sëriñ Tuubaa ci moom lay dëgërloo sil joodi mooy boroom tab gu sell ga moom sunu boroom wala aw te mooy boroom jéggal ga moom sunu boroom maal Mustapha te it maa ngi ànd ak ñu tànn ka di rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wallahu mi aji màgg ji nguur muxlidun aji béelal la muy aji saxal la yéey ci man sëriñ Tuuba saf wii samak sell ndeysaan wasixtu dëgërloo naa man sëriñ Tuuba maal muxtaari ànd ak ku ñu tànn ka billaahi ci yàlla mi aji màgg ji nguur wax dahoo moom dong moom sunu boroom alayhi yal na wàcc ci muhammad salaamaaman yaari jàmmi sunu boroom ya bihi yàlla mi nga xam ne moo moom yaari jàmm ya àddina ak àllaaxira yal na ko wàcc ci muhammad moom sunu boroom moom mi nga xam ni ne xatmaa moo far lak wii samay neen man sëriñ Tuuba sama dara neenul waqaani moom sunu boroom moom ma musal bihi ci darajaay rasulillahi assuu a ca mboolem ñaaw téef wa wa lii mu nekkal ma maanaam mu defal ma ndimmal bil mu naa ci ay xéewal yu ne gàññ yu sel yu dul jeex waxaadalii moom sunu boroom mu amat indi fi man sëriñ Tuubaa ixlaasan ak ngën ji sellal te bii ci darajay rasulillahi moom sunu boroom xat mahaa ca la fare sax wii samay njuumte man ahmadu bamba wala jutu tabbina xadiman di liggéeyal rasulillahi alayhi salaatu wasalaam tabbinaa ci liggéey boobu man sëriñ tuubaa fi imtidaahi ma boole ca nag nekk ci di ko tagg di ko kañ di ko bakk moom muhammad mi nga xam ne mooy muhammadan alayhi salaatu wassalaam yal na ko yàlla dolli teraanga ak jàmm yàlla mi aji màgg ji nguur salaatullahi xéewali sunu borom ya yàlla bu mu dakk di ko wàcce ca yonent bi alayhi salaatu wasalaam amin sunu borom moom yi nga xam ne maa mooy ka nga xam ne saana ñoŋal na lii ñeel ma nax wii sama ko wàll man sëriñ Tuubaa ndeysaan dugg naa muy tàbbi naa xaddi man di liggéeyal ki nga xam ne mooy Muhammad fimtidaahi ma boole ca nekk ci di ko taggaale wasilat yi ndax kooku mooy sama ommatukaay ba ma am ngërëmal sunu boroom moom muhammad mooy sama sëriñ man sëriñ Tuuba alayhi salaamallaahi yal na sunu borom wàcce ca muhammad mooma yaari musalam ya muy musalak addina ak goog alaxira amin sunu boroom moom mii nga xam ne muxliihi moo kowel Muhammad saa fas wi def ko muy boroom siiw ami wana lott na kullu sihiri min képp kuy boroom xam-xam wasaxiin ak képp kuy boroom jëf warut batin ak képp kuy boroom daraja anil Mustafa képp koo xam ne keneen ku dul Mustapha nga ba egg ci daraja ju mag ji nga xam ne sunu boroom jox na ko Mustapha kay ko ñu tànn di yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ko jox ci daraja fi xulqihi mu nekk ca jikkoom moom yonent bi al aisil ol wi jikkoom jooje nga xam ne làq na ak kowe am na ak kowe ca mboolem jikko yi ñëpp amul kenn ku dendanteeg moom ci jikko ak bind moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam wajihun ku màggoon daraja la moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam wasoolun ku daan eggale ab jaam ca yàlla la moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam waasilun ab jàllukaay la woon ngir am ab cër fa yàlla moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam balaa kenn am ab cër fa yàlla doon wàll yu maa nga doon leneen doon xajjab yàlla yaa ngay jaar ca kippaar ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam waasihun ku yaatu la woon moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam loxo moo amoon muy ñexeloon na ko sihaabun ay saaba muy ay àndandoo te bihim àndandoom yooyee ax ah, naa ni yallaahu ca la ma yàlla joxe doylu man sëriñ Tuuba ba fu ma amek jafe-jafe ci kaw suuf diggante géej ak jéeri sunu boroom yebal leen ñu fekk ma fa génne ma ca xat-xat ya ma nekk saxaabay yonent bi la sunu boroom daan yebal fu ma ne man Ahmadu ñu fekk ma fa ànd ak man ba ma génn ci xat-xat yañ ma doon teg an xas wi ba mujj man ahmadu duma soxla sax di takkab xare ngir jàkkaarloog noone lislaam yi ndax dara ak ñenn ak fenn kenn mënatuma empêché walla nga gàllankoor ma ba duma liggéey rasulullahi ba duma jaamu yàlla ndeysaan wasiimun ku rafet la woon moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa wahaabun ab mayaakoon la woon ku tabale woon moom yonent bi alayhi wasalaam boroom dénkaane bu sell ba moom yonent bi wasiilatun ab xommataakoon la woon daan xommatab jaam mu tegoo ci siraatal mustaqima ba am ngërëmal yàlla ëllëg mu war a dëkk ajjana wasilatun moo daan ommat moom yenent bi alayhi salaatu wasalaam moo daan ommat jaam ña te ba jii mooy ommat jaam ña ko gëm gëm yàlla gëm alquran moo leen di ommat ilaa xayri rabbin jëme leen ca ngën ji boroom muy sunu boroom di yàlla subhanahu wa sunu borom moom yi nga xam ne sikruhu alquraanam ji xatmaa lahwi ca la fare sama po ndeysaan man Ahmadou Bamba mosuma fo nii xale yi def sax di football ak caaxaan te seen ndaw Sëriñ Tuubaa mosu cee jaar yàlla nag moo ma faral loola ba jaaruma ci man Ahmadou wafiyun yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa saxoon dàkk ca melokaanam wu koye woowa karimun ca melokaanam wu tedd woowa waahidun ab digge haa kon la teraangaak jàmm ak yiw ak ak sell te wax doxoo diggéem ba ataa da daan dikke na mu ko waxe woon moom yonent bi bi ci darajaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam maala la yàlla jàngale li siwaana jëmale feneen furit fi nun sol jëwri ñay warooma dëng bir rëx wi ànd akam tiit ci darajaay yonent bi la leen yàlla jalaxe ñu jëm si feneen furut fi nun ñu jëm feneen furut fi nun te yàlla bu ñu ñëwati fi nun amin yal nangu waliyun moo doon xëjab yàlla ba nabiyun mooy ka sunu boroom solo woon lil baraaya yónni ko ci mbindeef yépp rasulu man mooy yónnent ka nga xam ni mu yàlla bi ci na mela boppam moom sunu boroom saaxa la jiitale li siwaanaa jëmale feneen furut fi nun saa zulmi ñay waroom ak tooñ wa sat wi ànd ak taxañ ndeysaan sama cofeel man sëriñ Tuuba li rab bi jëm ci sama borom wal mu xafaa ak ku ñu tànnkat yi yenent bi alayhi salaatu wasalaam wa isbihi ak kuréelam ba wa man abbahum ak képp ku leen sopp wallaahu yàlla mi aji màgg ji nguur kaana lii moo ko defal ma sopp yonent bi sopp baam ya sopp kuréelam ba bil aaw fi boole ca nag mu defal mag njëggal moom sunu boroom moo tax ahmadu man sëriñ Tuubaa mii wa sixtu maa ngi dëgërloo bi baaxin ci yàlla mi aji des moom mi nga xam ne surtout mujj naa sax man sëriñ Tuubaa am fa darajaay ab dan turu jaam di jaamu yàlla di topp yàlla di sellal ba am turu woowu lu jafe la ci doomu aadama turu abdan yàlla tudde ma sama jaam am naa ko turu abdan lahu di yàlla am naa turu màgg wu rëy woowu te it maa ngi ko amee bii ci na mel yàlla ak ci darajaay yenente bi ma boole ca nag xadiiman may liggéeyal li xayril xalxi ñeel ngeen ji mi ma di ko liggéeyal di ko tagg di ko bàkk di ko kañ di ko yaatalal ab liggéeyam na ko ko yàlla sante ma di ko wasaare ci kaw suuf man sëriñ Tuuba bil moksi ma sax ca dàkk nag wa safi boole ca di ko sellal amiin yàlla na nu ci yàlla saxal ba keroog na foofu nag la fu waaw jeexe jàngal nañ la ci fukki bayit ak ñaar ni ko sëriñ bi binde jiim la ca leeralal sunu kemtalaaye kattan la ca manki sunu matadi la su ko defee ñoo nga yem foofu yaa ngi ci page 6 numéro bii di ñëwaat muy numéro bi topp ci bii noo ngay song arfu liif liif ga tamit fukki bayit ak ñaar lañ la jàngal noonu la ñuy topp téere bi ndànk-ndànk ba keroog lépp yi jeex yal na ci yàlla dimbale ba lépp sell nañu ko bëgge wasalaamu aleykum